moom ca biir këram dara waralu ko lu dul gurëb président Macky Sall mu toftal ci daal dinañ koy atte par contumace daan ko ñaari ati kaso ba noppi arrêté ko tëj ko ci kaso bu sibi xotaan Ousmane Sonko moomee nga xam ne mooy yaakaaru askanu Sénégal ba tey jile moo tee bi jeu bi moom moo koy doxal bépp plan boo xam ne nas nañu ko jëm ci moom tukkee ci régime bi moom moomulee daf koy daal di fent ba dara du ci xewa dañ ca doon yaakaar duñ ko ci daal di am daal di ci dolli président Ousmane Sonko moom ci boppam moo bind li nga xam ni moom la ñuy woowee acte de non acquiescement maanaam ñàkk d'accord ca lañ ko daan ci mbiram ak aji Sarr ñaari fan ci weeru ut la def lu ni mel li ko waral mooy d'accordu la ci ñaari ati kaso yi ñu ko daal di daan loolu moo tax ba tey jilee moom moomu lee mën naa nekk candidat mën naa dem ci jongantey atum 2024 yi ñuy daal di dëgmal ñoom nag nga xam ne dañoo jaaxle xamuñ fu ñu teg seen tànk di waa système bi seeni xel seen xalaat seen jëf ak lépp lu ñu teg rek comme acte leen naa ko tax a jóg muy daal di xañ Ousmane Sonko bokkam ci jongantey atum 2024 2024 yi ñuy amal ci ñaar fukki fan ak juróoma weerub février moo waral ñuy forcé di def lu ñu mën ngir génne Ousmane Sonko ci liste électorale yi moom mi nga xam ni mooy candidat wu askan wi la ñuy def yëpp teguñu ko ci yoon ñu ngi dëggatee tey salfaañee yoon bi ñu daal di tëral ci suñu am réew di Sénégal président Ousmane Sonko ak junni sénégalaise ak sénégalais yi ñu tëj ci biir kaso bi dañ leen war a libéré junni doomi aadama yi nga xam ne ay ndaw lañ yoonu géej gi di dem seen yoon war nañoo dalal seen xel ngir ñu dal di toog loolu yëpp nag di ay jéego ñu war koo teg lenn dong moo ko waral suñu am réew na mu tuddoon démb moom la tudd tey te lay mës a tudd te du lenn lu dul Sénégal ba tax na moom El Malick Ndiaye mu toftal ci ne ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko bundu xataal gi ñuy teg ci kawam moom ak ñi muy la na gars bàyyi xel ci ne ëllëg dinañ wàcc nguur gi mu nekk ci loxoy ñeneen aye doomu aadama boo xam ne ñeent fukki at ak juróom-ñeent dong la daal di am desewaat ko ci kanamam ñaar fukki at ak juróom-benn ci wàllum politique loolu ñàkk xam mënu koo weesu ak ku xam politique xam réalité yi ci daal di nekk xam ne ëllëg lu ne mën na cee daal di xew. loolee tax na moom El Malick yi muy wëyal dem ca tribunal bu Ziguinchor di wax ne la nga xam ne moo fa war a xew. ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax ñeel mbiri Ousmane Sonko ak la ñu fay lijjanti mooy la ñu ko génnee ca liste électorale ya. nekk nag mbir moo xam ne yitteel na leen lool ndax li mu jàpp mooy candidature bu Ousmane Sonko maanaam bokkam ci jongante atum 2024 dafa bokk ci loo xam ne dafay ñoŋal démocratie ndax nag askanu senegal noo ko daal di tànn topp ci ginnaawam te képp koo xam ne rek jëlkatub ndogal nga war nga ko ko mën a daal di nangul loole ma waral mu daal di jeexalee ay kàddoom ci ne soit dañuy gagné wala boog ñu gagné maanaam perte xalaatuñu ko benn yoon. kaw ca kanam république ca kaw ca kanam démocratie justice bu moom boppam. boo xam ne kenn du ko wax fu muy jaar mooy càkkuteefu El Malick Ndiaye demale ko ci mbiri Ousmane Sonko bi nga xam ne Sénégal gi yëpp moom la ñuy waxtaanee agite News. l'élection présidentielle de 2024 bientôt dans quelques mois une seule candidature fait la une des journaux tout le monde en parle dans les émissions télévisées c'est celle de Ousmane Sonko dont la radiation sur les listes électorales sera évoquée ce jeudi 12 octobre 2023 au tribunal d'instance de Ziguinchor El Malick Ndiaye chargé chargé de la communication d'Ousmane Sonko est revenu sur la question avec les propos suivants, je le cite, barricadé durant jours par le régime de Macky, jugé par contumace et condamné à deux ans de prison, arrêté emprisonné à la prison de Sébikotane, Ousmane Sonko, l'espoir du peuple sénégalais, est resté maître du jeu en déjouant les plans de ce régime et ce malgré toutes les péripéties. Le président Ousmane Sonko a rédigé en sa personne le 2 août 2023 l'acte de non-acquiescement qui anéantit le jugement qui lui avait valu une condamnation de deux ans. Il garde intacte son éligibilité. Étant dans le désarroi, le système obnubulé par l'élimination du président Ousmane Sonko de la présidentielle du 25 février 2024 veut forcer une radiation des listes électorales du candidat du peuple en parfaite violation des textes et lois de la République du Sénégal. le président Sonko et ses milliers de Sénégalaises et de Sénégalais emprisonnés doivent être libérés. Ces milliers de jeunes qui prennent les océans doivent être rassurés pour rester parce que ce pays s'appelait, s'appelle et s'appellera toujours le Sénégal. Cet acharnement contre la personne de Ousmane Sonko et de ses collaborateurs doit cesser au nom de la réalité de l'après-pouvoir Penser liquider politiquement un opposant de 49 ans d'âge qui a 26 ans de carrière politique devant lui, c'est ignorer les lois de la nature et de la réalité politique. Nous accordons une grande importance à la procédure de de la radiation des listes électorales du président Ousmane Sonko qui sera évoquée ce jeudi 12 octobre 2023 à 9 par le tribunal d'instance de Ziguinchor. La candidature du président démocratique et une volonté populaire que tout décideur se doit de reconnaître. Soit on gagne, soit on gagne. Vive la République, vive la démocratie, vive une justice libre et indépendante. Tels sont les propos de El Malick Ndiaye concernant la procédure de contestation de la radiation des listes électorales du président Ousmane Sonko en vue des élections présidentielles du 25 février 2024. AGT